الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yen mbokk interlocuteur yi nga xam yene faral di setan sen site bu mag bi di Allo Dakar TV international xam ngeen ni aljuma bu jot amal nañ len émission bu mag buñ len di defal muy juma mubarak tey nag ñoo ngi fii ci jumaa ji nga xam ni mooy jumaa ji nekk fii cité Djily Mbaye ci imam bi nga xam ni mooy imam Touré euh, bu ko defee xam naa ni dañuy dugg ak yéen ci biir jumaa ji bàyyi leen ngeen xool julli gi ñu bàyyi leen ngeen déglu bayaan bi bu ngeen dégloo bayaan bi ba noppi ñu bàyyi leen ngeen déglu xutba bi ak imaam su ko defee bu ñu noppee ñu mën a toog waxtaan ak yéen ak waa ñi nga xam ne ñoo yor kuréelu jumaa ji ñu mën a waxtaan ci jumaa ji

jagleel ko mbooleem géej yi mu tëbb ko taral ko ci am xel ak aw làmmiñ xel mi di xalaat xàmmee lu baax ak lu bon làmmiñ wi man di génne lépp loo xam si xel xalaat na ko ndax communication ak yi nawleem jaar yoon yàlla teral doomu aadama ci xam-xam ak ràññee ngir mu mën a jariñoo li ci kaw suuf waaye ngir mën a xam xéwal yàlla yi pour mën a sant yàlla méritoo ndolent méritoo àjjana waaye tam xam-xam boobu may ko mu jariñoo xéwal yi ko yàlla may ci kaw suuf muy jaww ji jéere ji ak géej gi ak lépp ci kaw suuf te ay njariñ yàlla jagleel ko doomu aadama waaye ci xam-xam la koy mën a génnee la koy mën a jariñoo ba du ci loru du ci lore mu tàggatal ko mboolem jéeri ji ak mboolem géej gi li fi nekk lépp mu tàggal ko doomu aadama mu war a nekk ay njariñam kon doomu aadama wax dëgg yàlla war na sant yàlla waaye mu def lislaam muy diine ji nga xam ni daa boole njariñu àdduna ak njariñu alaaxira diine islaam toppatuwul alaaxira ka si bàyyi àdduna waaye toppatawul àdduna kese bàyyi alaaxira daa boole àdduna ak alaaxira jox ñu xam-xam ak xel jox ñu ay téere pour mën a jariñoo àdduna ak alaaxira am saadu daaray ni texe fii texe fële yàlla nañ ko murlo ci loolu mbokk yi yow mbokk mu tedd mi bu fekkonte ni nit ki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 يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله asalaamualeykum wa seen site internet bu mag bi Allo Dakar TV international moo koy amal tey nag muy première émission boo xam ne ñi ngi ko defee fii ci cité Djily Mbaye fi nga xam ne fii la télé bi nekk ñu ñëw ci ki nga xam ne ci njiitalu imam ture ñu toog ak ñi nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci jàkka ji ñoo ko yor ci jàkka ji ki nekk sama ndeyjoor muy Serigne Xaadim Mbacke Ifan defe naa ne ku ne xam na ko ah, si sama càmmoñ muy Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Modou Moustapha moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak magum taalibe yi ak imam bi kon xam naa dañuy jël kàddu gi li nga xam ni moom la ñuy waxtaane tey mooy jumaa ji ak ah, ñi nga xam ni ñoom ñoo fi julli si ak nit ñi nga xam ne dañoo dëkk ci gox bi yëpp. ni jumaa ji di tërale ak ñoom ñi nga xam ne moom la ñuy tërale seen jumaa ji sëriñ Xaadim bisimilah ñu ngi lay nuyu. bisimilah rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Eh, ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy seet ñooy seetaan siit bi Allo Dakar. di wane sun mbégte ci eh, ñi nga xam ne ñoo koy jëmmal. te yàlla dogal ñuy soog a ñëw ci sunu karce bi fekk si nu ko fekk si nu fii lii mooy euh, àjjuma ji nga xam ne moom lañ njëkk ànd ak ñun euh, julli ko loolu mbégte lu mbégte mu réy la ngir ñun ñëpp ndax euh, dafa mel ni ñi nga xam ne yëngutu ci tas xabaar sakkantuma ne ñi nga xam ne ñooy toppatoo jumtuwaay yu xereñ yu yees yi ñooñu suñuy suñuy allié la ñu. Euh, li ñuy wax ci jàkka ji jàkka moom mooy xolu quartier bi mooy roowu quartier bi sax laay wax ndax liy defar nit ñi ci li ëpp solo ci nit muy roox fi lañ koy jëlee kon euh, teewug euh, jumtuwaay yoo xam ne yi day tax ñëpp mën a jot ci liñ fiy wax lu ñu rafetu la lu ñu lu ñu lu ñu bëgg mu mu mu mu yaatu la loolu moo tax mboolem ñi fi teew nga xam ne ñooy. waa quartier bi nga xam ne saa boo ñëwee jàkk ji fekk leen fi euh, duñ man lu may euh, sargal leen euh, ñaan lépp loo nga xam ne lii taataana ngeen ko fi ci ay ay xam-xam mu dem ba fu mu gën a yaatoo jàkka ji wax dëgg yàlla moom mu ngi def ci quartier bi li nga xam ne moom la fi war a def. waaye xam naa ni question bi nga xam ne moom lañuy laaj imaam mooy dañu wax ni jumaa néegu yàlla la. ta amnachi ci ay mm, nit ñu bax ñoo xamni yalla denk na leen wërsëg ñu nekk ci gox bi wala ñu nekk feneen te e, ku ne xam na ni juma dina am lu mu soxla dina bari ay jumtukaay yoo xam ne da koy soxla ñu nekk fii xëy na du xam du ñu xam nan lañ fa lañ ko war a jaarale wala boog juma ji am lu mu soxla loo xam ne du mën a saasu ne di wër ci nit ñi di leen ko wax ku ne xam ne néegu yàlla nag lu fa waay def rek suñu borom nga defal kon imam tey ku bëggoon a ñëw fii wala nga am loo xam ne war nga ko bëgg indi ci jàkka ji maanaam ci nan la jàkk ji tëre ak nan la nan lay doxe ba loolu yëpp gën a yaatu kii leen jox kàddu gi mooy imaam mu euh, jàkk ji muy cité Djily Mbaye muy imaam Touré. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa boobu sax dama bëggoon a bàyyi suñu secrétaire mu wax ko ndax moo féetewoo loolu ndax am na ko xam si lépp acteur jàkk ji moom mooy secrétaire moo koy bind muy Moussa Diallo El Hadj Baba euh, Ahmed jàllo ak artisan muy Lamine jàllo am na koo xam si lépp lu jëm ci wàllu maçonnerie bâtiment yeeg ñoom seen yooyu moo ko yore équipement bi yëpp ci loo xam ne nekk mooy suñu at euh, mi ngi ne muy El Hadj Abdoulaye euh, Seck ñu bàyyi baabo walla kii Lamine ñoom ñaar ñoo bokk liggéey bi ñu wax ak tuuti yooyu après ñu jox Abdoulaye <coughs> sëñ bi yow nga sànni ci kàddu yi donte kàddu yi ñaan rek parce que rek dëgg-dëgg moom kilifa la ko jàpp bismillah rahmaan rahim lii de moom dafa di initiative bu am solo ndax juma juma moom julli juma moom alxuraan moo ko moo ko yëkkat te lu ngeen mën a def rek su ngeen déggee noddu juma rek bàyyi leen ko ñëw fii nag moom juma ji spécialement li sëñ sëñ xaadim wax rek dana am

ci njàngale moom ak wax ji nga xam ne wax na ko ci jumaa ji nga xam ne fii la dëkkee kon ñu xam naa ni waxtu yi dafa kiiwul ñu bàyyi kenn ci ki nga xam ne ñoo yor jumaa ji mu wax ñu nan la jumaa ji di tërale ak ko yàlla defal daraja da nga war a am loo xam ne war nga ko def nit ci néegu yàlla te dëkk ci gox bi ak li ko war auzu billahi mina sheytaani rajim mbooloo mi ci ndigalu Euh, ñu jéem tontu ci sen question bobu ndax defe li ci ëpp solo mom ak docteur Khadim wax nañ ko li jëm ci juma ji deug la juma ji dafa am luñ ñu comité de gestion man mi di wax ak yeen man may secrétaire général bi donc comité bobu moy taxaw juma ji ci lepp lu nga xam ne dina ko wara soxla diko ko non lañ ko organiser amna bureau. am nañu trésorier su amee koo xam ni am na loo yéene war koo def ci jumaa ji ku ko mën ti yëg li ko dale ci imaam jaarale ko ci docteur Khadim ba agsi ci ñun ñi yaakaar naa dina àgg jëm jumaa ji sumb na fi ay projet yu bari yàlla def na ci sutura ah waa koñ bi ak ñeneen ñoo xam ni am nañu doole jàppale nañ ñu ba yeggale nañu loolu am na yeneen projet yu fi des yoo xam ne aussi ñu ngi ciy taxaw lu jëm ci wàllu minaare bi ak ci wàllu étanchéité bi yooyu yëpp lu ñuy war a jublu la ah di ci woo tamit ñëpp comme ni ñu ko daan defee ñu continuer di ko defee noonu yaakaar naa ni daal fànn boobu loolu laa ci mën a wax su fekkee ni dafa am lu ci desit ku ko mën a complété mu complété ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay di leen dalal te di yaakaar ni collaboration bi dina continuer ci wàll bi wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, li ma ci buggoon di dolli moom lu xaw a néew la damay compléter rek li suñu secrétaire bi wax maanaam euh, liggéey yu am solo ñu sumb ci jàkk ji ndax jàkk ji yàlla dafa def fi ñu ko samp dafa nekk ci gox boo xam ne bi dafa jege géej gi torop te loolu environnement la boo xam ne bi dafa am ay jafe-jafe yu muy indi ci tabax yu bëri maanaam tabax yi bu ñu demee dañuy gaaw a màggat euh, seen weñ yi xaw a xomaag mu am ay jafe-jafe ci maanaam dëgëru bâtiment bi ak sécurité bi euh, yàlla def na nag ba loolu euh, tax na ba sumb nañ fi liggéey yu bëri yoo xam ne jot nañ ko def lu demee ni demoon nañu ba ñu yàgg suñu kuppel bu tiim ñu kuppel bi tiim ñu fi siirewu ba mu en daal di ñuy indil ay jafe-jafe ci sécurité yàlla def nag euh, ñëpp dugal ci seen loxo ba ñu daaneel ko toj ko defaraat ko def nañ ci tamit benn liggéey bu am solo ci suñu morgue bi ndax morgue moom ci jàkka lu am solo la euh, demoon nañu tamit ba daal bi yàqu ba nga xam ne bi amatul benn sécurité yàlla dimbali ñu tamit